الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk ñu del si waat ci 2084 ci ndimbalu borom bi subhanahu wa taala loolu woon démb rek fi tegam suñu baaraam ci fii suñu réew mi Sénégal toll diggante population bi ci biir population bi diggante <clears throat> sëriñ si ak taalibe yi wala boog ñenn ci taalibe yi ak ñenn ci sëriñ si euh, feewaloo gi nga xam ne wala boog bu fekkee sëriñ si ñoom amuñu benn coppeeku ci waxuñu dara ñoom ci luñ ni ak féewaloo waaye taalibe yi nii ñu soppi ko ñenn ci ñoom di jëme ay wax yu doy yu ñaaw yoo xam ne kenn du ko wax sa waajur loolu mbokki taalibe yoo xam ne dañuy ànd ak ñun ci taskiir di bëgg ku ci def ay leeral ndax ñoom loolu da di dimbali loolu lu am solo la alakul waaye mi nu fekkoon ci waxtaane àdduna nuñ ci war a dundee ba am àllaaxira yu jàkk ba jagal àdduna mii jagal adduna nag mooy day am ay jikko yu ne ci yow nga soog sa adduna ko mën a jag waaw xam li ngay def te maandu doylu nangoo sonn bañ a yu deme noonu su ko defee sa adduna day neex lool waaw léegi nag yow yooyu bu fekkee nekkul ci yow nga bëgg sa adduna neex ñaar yooyu munta am munta am kat munoo boole ci benn euh, kaas kaas bii ndox mu xong ak ndox mu bula te bëgg menn ndox mi rek genn couleur gi ñaari couleur nga jaxase kay léegi dutu am xong dutu am bula waaw dutu am bula dutu am xong loolu foofu lañ toll nag gis nga kilifa diine te mooy lii alayhi salaam junjoon nii Euh, ñaar ñii di boroom xam-xam yi daal buñ ko waxee rek kilifa dina duggale na ak waa nguur gi nee na bu ñu jubee rek bu ñu jubalee rek bu ñu baaxee rek nee na population bi noonu lay mel safaan bat bu amee nee na population ba noonu lay mel loolu nag àggagul foofu waaye jaxasoo tàmbali naa am nit ñi sib nañu ñuy def politique politique seen lool ndax dañ cee teg seen baaraam dund ak ñoom loo xam ne day répété wu day répété wu day répété wu rek moo tax ndeysaan sama benn mbokk ma ni ko ren am ngeen jiw mu ne waa ah, ren de moom tan la ndax man sama euh, cinquante kilo bi ñu ma joxoon muy génn wàll bëri ko xottu bu ñu ko xoolee fukki kilo juróom-ñett yi gi moom la buuse ba xaw ma nangami kilo la maanaam euh, liñ ma ko jaayee moom fi ñu toll nii su su ma ko jaayatoon mooy ëpp moom liñ ma ko jaayee maanaam mu ni loolu mooy ren tane na te wax na dëgg ñu bari da amuñu loolu ñenn ñi am daawuñu am lu mel noonu ci sa wet koo xam loolu nekk fa am ay ton toni kemb waxuma la gerte xot toni kemb te loolu yomb fee jële ñu bañ ko fee jële kon Sénégal yi ñoo yey dañuy dem ba duutuñu gëm benn benn benn politique sain boo xam ni euh, yaa ngi ci def politique politique sañ àlla kul waaw waaye mbokk yi euh, dëgg la euh, kilifa diine yi dañ leen a war a ormaal waaye kilifa diine gu ci jaar fa mu war a jaar rek ba léegi nit ñi dañ lay sopp ju la bëgg benn benn yay wax nag wax joo xam ni dañoo umpale kilifa diine ga da leen di jéggal su ma jëlee nattukaay bii ci seex Cheikh Mountakha ni euh, musuma dégg man dégg gu ma wax yi ñuy wax waaye bu ma déggal ñuy wax jëme ci moom it yàlla bu mu ko dégg waaye bu ko déggee ko déggul ñooy mooyam ci moom ci digganteem ak ni yërëme nit ñi ak jubluwaay bi mu am yàlla xam na ni wax dañuy wax ci moom mu safaanu ak mu jub doo ko xàmmee ci Cheikh Mountakha su ma tuddee kilifa googu day yóbbaale kilifa yu toll fam toll dinañ comprendre nag ñi nga xam ni ay taalibe lañu mer jaaxle gis luñ jàpp ni yomb na ay kàddu yu néew yu war na jóg te jógul di nga leen comprendre bo waaye dañ leen di wax ni leen euh, muñ leen te dellu siwaat nu toog waxtaan bunt dana feeñ insha allahu mbokk yi euh, xoole saxaaba yi nañ doon ànd ak alayhi salaatu wasalaam waaye dangay xool moom it lam doon ànd ñoom ak fa leen tegoon seen yitte mooy yitteem yitte yi alayhi wasalaam mooy seen yitte isaan Seydina Omar radiyallahu anhu eh, mus naa ñëw ci yonent bi fekk ko ci biir fekk ko mu mu mu mu tëdd yonent bi jóg Omar jooy alayhi salaam ni ko Euh, lan moo la jooyloo yow Omar mun ko ah ndaxam moos dama fàttaliku rek euh, euh, njiitul Kisra ak njiitul Xaysar dañoo doon ay buuri àdduna lañu doon yoo xam ni seen nguur ga ni mu jamono lool lool waaw dama ko fàttaliku rek nii ñu nii seen àdduna mel te yow la yàlla yónni lépp ne sa loxo mu xool yow sa faar yi nga tëdd nii ci euh, li nga tëddoon nii bant yi nga xam ni mi ngi nuur ci safaar faar gi ndeysaan nga tëdd ci ak euh, ak ak ak bant boo xëy dañ ko defaree ngeer sama gaa yi xam nañ loolu nun yàgg nañ cee fanaan ndeysaan nga xam ni même bu dee basangit ay bant lañ ko defaree takk ci suuf nga tëdd ci Omar gis loolu nag gis nga ko alayhi salaam ni ko ulaayka xawmun ujilat la um tayibaatu um fi xayaati im dunia waaye wana un xawmun uxirat lanaa tayibaatuna fi l axirati aw kama xaal mu ne ko ñooñu ngay wax dañu leen a gaawe jox leen seen ay xewal fii ci àdduna ñu nekk di ko dunde nun nag Omar nun nun bilit ñi nee na ñun dañu noo tëyeel suñuy tayibaat suñuy xewal ba àllaaxira seet gis nga ko waaw tëyeel ko ba àllaaxira waaw kon euh, nun nag li ñu dominé ci fi ñu toll yi nii mooy bànneex bànneex te eh, suñ tubaa la musa wax cheikh su mag sa nii bu leen gën a bëgg sa taalibe yi lu dul yàlla loola fi toll nii ah, wax dëgg yàlla ñi sant mbooj ak ñi sant jaañ ñu ci bari ñi ma ñimee wax am nañu topp seen ginnaaw de waaye ñoo gën a bëgg taalibe yi àdduna ñoo gën a bëgg ñi leen topp àdduna waaw day feeñ lool loolu nag ah na waar moo tax suñu Aliou daan wax ni man rek li ma ragal ci yéen mooy ñaar yi mooy guddu mébét waaye guddu mébét dina tax jullit bi jàdd yoon dugg ci giraawaal yi ba def lu xaraam ba alak boppam nee na ak topp bànneex plaisir yow tey jii falu nga rek aha bunt yu ubbeeku na nga dem ba def loo xam jéggi na doyo gis nga ko wala tey jii barke bi ñëw na rek mbooloo bi ñëw na sa baay ay nàngam wala te yow nàngam rek gis nga ko itibawul awa watulul amal ndax nee na ay mébét lay fàttaloo àllaaxira waaw ndax dangay topp porse yi nga nekk di dem ak ñëw rek nee topp bànneex yasuddu anil aq day dox sa digganteeg dëgg day tax doo gis dëgg te duniyaa nee na laxas na wan la ginnaaw di daw boo yëgeeg boo yëgul àllaaxira nee na bërit fa jëm ci yow boo yëgeeg boo yëgul te kenn ku ne ci ñoom ñaar nag dafa am eh, ay ñoñ kon na ngeen doon ñoñi waa àllaaxira bu leen doon ñoñi waa àdduna si la àddu daana ko wax tey jii ngay dund bis la bisub réglé bis la bisub jëf la waaye du bisub regle évaluer loo am ak loo ñàkkagul ëllëg yowmal xiyaam nee na du bisub jëf de waaye bisu rek la na ngeen bari ay jëf fii ci bis bi ngeen nekke man ko waaye ba ngeen xam ne du ngeen mën a jëf te soxla woo réglé bu baax fii ngeen koy waajal alakul xaaj daana wax daana wax lu mel noonu waaw waaye mbokk yi euh, su fekkee nii dañoo toll fii ba ab taalube ak sëriñ nga ciy dégg kàddu yoo xam ni musoo foog nii waxtu wi daaw sax ren jii dina toll foofu te dara warulu ko lu dul ni àdduna tëdd nga xam ni euh, dañuy def ay ay ay parti dañuy euh, dañuy amal li ñuy wax ay ay révolution yoo xam ni léeg-léeg benn continent nga dégg ay révolution jóg yéen ñu ngi fàttaliku jamono yi printemps arabe waaw te li gën a metti nag doo ko dégg ci Europe yu mel nii ak di ko dégg ci Amérique moom daal Asie wala Afrique rawatina Afrique Afrique yéen ni ngi nii sunu doomi réew Sénégal ay junni junni war fii jóge dem ci yeneen dëkkandoo fii ci Niger te nga xam ni ba lislaam di lislaam daanaka fii ba Soudan yëpp yëpp ah, dafa nekkan génn moomeel waaw dafa nekkan génn moomeel tey jii eh, lépp loo xam ne ñu ngi koy jël ci ngànnaay ni dañuy regle ji béréb sàngam fa muy mujj tee ñu koo jëkkee lan fa muy mujj waxtaan toog waxtaan toog waxtaan même suñ politique politicien yi ñuy def nii yi ci juddoo yëpp dañuy mujj toog léegi waxtaan kaw français bii ñu defoon mandat d'arrêt mu dugg senegal ba génn euh, dem Mauritanie ñu jàpp ko ñu indi ko ñu bari noonu xam na ni kii moom mënut rëcc xam nga kii nangam fu mujj waxtaan woo ko génne nun xamuñu ko ay waxtaan la ay wax a ko génne xam ngeen loolu wax ko génne kii ñu génne woon réew mi muy doomu Abdoulaye Wade euh, euh, tuumaal ko alal jum jëloon ay wax moo am ba ñu ne léegi mën naa bokkaat seetal nañ ko léegi xalifa saalet gis nga ko mën nañ ci lim yu baree baree bare bari waaw lu tax wax yooyu ñun léegi duñ ko jiital lu tax duñ ko jiital waaye buñ nekkee ci suñ politique bu ñu jekkoo wala buñ amee doole wala buñ amee ah, objectif boo xam ne lii moo nu ko mën a may dina jar nu faagaagal nit tëj wala génn ko rek donte day faatu ba liñ bëgg nu am ko bu loolu jàllee nag nu defarawaat léegi soo ko toog waxtaan xool li normal ñu def ko ay mbokk yi mbokk yi nan ragal yàlla nan ragal yàlla subhaanahu wa taala nan ragal yàlla subhaanahu wa taala waaye def jëf yi nu ku fàtte yàlla ah fa ansaahum anfusakum rek yàlla da moom ku ko fàtte Eh, yàlla daal lay fàttaloo boppam fàttaloo la sa bopp wala iyaasu billaah loolu nag yàlla ci yàlla musal yàlla musal waaw waaye te jamono toll foo xam ni noo ngi nii am na ñoo xam ne ba léegi tawagul ci seeni tool ndeysaan ñu ngi ci noor am ñoo xam ne seen nawet léemu ak ñaari weer am ñoo xam ne seen nawet gerte gi mi ngi tóor tóor dugg ji léegi moom it jóg na te ñi nga xam ni tawlooguñu ba léegi ñax mu seen jur lekk rek amuñu ko te seen ngooñ jeex na bu yàgg kon na nañu dimbalante bu baax ndax am na ñu sonn lool am na sonn lool dimbali bi gën a gën a gën a far nag mooy ñi ne ci kaw yore àtte yore di dogal di séddale ñooñu moom par force dañoo war a maanu waaye liñ leen doon fale ba jox leen turu barab ba moo xam ak ministre la wala ñooñu ñoom obligation la ngir ñoom kenn téyeloowu leen li war a jaar ñoom di dem ci population bi te population bi sonn nañu trop trop trop maa ngi gis ci marché bi rek sama jën doom ma jaar place ma dégg kii naa ko soble bi ñaata mun ko mille xaw ma la ndax soble su Maroc la xaw ma leen mille cent franc xaw ma xaw ma mille cent cinquante waaw mbokk yi kon man leen ndax moom soble laa mënta ñàkk dem ci togg yëpp ñun ma ah, daanaka day togg yu bari mënta ñàkk soble da kon xam naa eh, am na mbokki jëngeen yoo xam ne liñ daa togg ndax xam naa ko laaj soxna jég ba xam loolu nu mu tudd te muy bari soble lool ma ne loolu moom xam naa dañ koy aj ba ci kanam rek mbokk yi kon buñ tolloo fii coowul politique tax yu bari nu fàtte ko ci dund koo xam ni population bi ñu ngi koy dund xool ñi am problème mu faju euh, ñii am nañu alal ju ñu fajoo waaye dañuy mujj sax sàkk pexe génn ndax euh, niñ leen war a faje fii sax day des bu booba ndax topp coowul politique ak ay bi bu ñëwee sax daanaka doo ko def ci yenn béréb bi am ci ne docteur yu baax yu dul soppeeku mukk mukk mbokk yi na ku ne ñaan waaye ñaan gi nga ñaan da nga jiitu jiitu ci lan yii ñu doon wax sëñ Ali di wax nii baaxul nga di ko moytu sëñ Ibrahima day alayhi salaatu wasalaam yonent la dañ ko noonu waaye noo def ba yàlla def la xarit nga yàlla ni diw mooy sama xarit ci moom lañ ko jëkk a déggee waaw mu ne ah xam naa mën naa doon ci ñetti yëf de ñetti yëf yii day ba ca jëkk mooy musuma tànn ci ñaari mbir lu dul wàcc naa mbir ma jëmul ci yàlla jël mbir ma jëm ci yàlla ñaareel baat duma ma li nga xam ne yàlla moo ma ko warlul dama yittewoo li ma yàlla teg sant ma ko luy loolu yàlla nee na moo nu warlul wërsëg moom mu daal di sa wërsëgam yàlla waaye yàlla danoo digal nag ñu di ko jaamu di ko topp gis nga julli yeeg woor yeeg dimbalante geeg moom ci yooyu la nekk moo tax suñu saar yi ko doon firi nii ku ne ñaari biir biir bàmmeel loo ci doo ko ca fekk te te diñ ci dem gaaw leen def ci su biir bii yàlla mi la ko jox li ci war def moo ko ciy def moom yàlla gis nga kon gis nga kon ñetteel ba ne la musuma añ wala ma reer lu bokk naa ak gan waaw yi kon dinañ gën a ñëwaat dal ci loolu yu jot na wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sunan sakartuhu lianna xad saxani liwatani bihi nafa ma